ak koo mën a doon nag. ku ñëw baax na. ah gars yi nee moom du ma moroomam. ku ñëw baax na keneen mais kooku du ma moroomam. kon wax ndax Cheikh Tidiane moom. teg ci Sa Thiès nag waaw ñooñu ñooñu laa wax Sa Thiès nag gars yooyu. bu ma leen mën am ñeneen. mais dama ne sama bët ñooñu laa ko teg. Ah. waaw. Ah, kon baax na sëñ